la jeunesse de Touba ak ñi fi nekk ñëpp di sant particulièrement ASC Santos bi nga xam tey moom moo war a football final tey tey jii ñu woo ci Baye Serigne Saliou Sylla di frère ci Abdoulaye Sylla ku xam Abdoulaye Sylla xam ni vraiment euh, nit la kuy jàppale jeunesse Touba ak Mbacké ci su ci lu ne nag ci wàllum sport ak lépp parce que ñun am nañ ci benn firnde bu ndaw a ndaw muy la la fois passée benn tournoi bu mag bu am Mbacké bi ñuy sargal euh, Mamadou Kassé Euh, tudde nañ ko fa benn match mu ñëw def ci lim man lépp yabal fa euh, Serigne Saliou mu ñëw pare parrainé match boobu def tout un tout un tout lu mu mën daal loo xam ne def na ko fa ñu mu jariñ lu bare bëree bëri ñun tamit nag jeunesse Touba euh, ci ASC yëpp nag ak lépp ak jeunesse bi ak leneen ak leneen pare nañ aussi tamit pour jàppale ko ci lu bëree bëree bëree bëri man particulièrement doon naa ci waxtaan ak benn sëram muy Anta di ko xamal ni que dama gis ci lu mu def lu bëree bëree bëri ci Touba. ci wàllum assainissement ak leneen ak leneen loo xam dama teg sama bët ak yeneen nag yu bokkut ak loolu tamit loo xam dama cee teg sama bët ma gis ni nit la ku nit la ku dëkk Touba koo xam ne mu ngi dimbaliwaa waa Touba ci lii ak ci leneen kon donc man damay jël sama tubay sol sama dàll dem ba ci moom du ma xaar muy ñëw ci man may damay dem ba ci moom xamal ko ne ko damaa pare pour jàppale lépp kon donc ñun tamit jeunesse Touba ak li muy def ci ñun ak li mu pare pour defal ñu ko ñun ñun pare nañ aussi tamit pour jàppale ko ci lu bëree bëree bëri di remercier Serigne Sali bu baax ci taxawaayam ak jotam ci ñun ak ci jeunesse bi parce que dañ koy gis à chaque fois muy ñëw di représenter lu bëree bëri bëri ci jeunesse Touba ak fépp di ñëw di ñu encourager di ñu soutenir ci lépp nag ci poosam ak ci dooleem ak ci matériel am te nit moom amut lu dul nag ki la defal lu baax nga mën koo tagg te ñun mën nañ ko remercier ci côté bu ne loolu laa ne woon dinaa ko sànni ay kàddu xamal leen ko. ñi ngi leen di jaar yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant. di ziar équipe bi Santos nga xam ne ñun fii lañ defee lépp fi lañ màggee fi lañ fubalee kade fi lañ defee suñu lépp wax dëgg yàlla ah, di sant sama grand yi nga xam ne nii ñun ñii ñoo ñu formé ñii ñooy nekkoon suñu ay coach ñii ñoo ñuy wax ni ñuy dóoree bal ñoo ñu ko jàngal di sant grand Cheikh du sama sama grand sama gaayen di sant grand mbay yéen ziar yéen ñëpp suñu grand yi toog fii yëpp wax dëgg yàlla ñii seen keppaar lañ yaroo. fi lañ ci lañ jàngee football ñoo ñu tàggat ñoo ñu ñoo ñu doon wan ni ñuy ni ñi ni ñuy ni ñuy góorgóorloo daal ci ci ci football bi. wax dëgg yàlla di di di ñëw pour soutenir suñu ASC parce que lii du laa xam ne dañu ko dañ cee boole lii lu ñu bokk la wax dëgg yàlla. ba tax na président Ablaye Sylla bi mu commencé mener ay action envers ASC yi wax dëgg yàlla début bi xawoon naa kii ndaxte eh, décision bi dakaar la jóge ñëw ci sama kaw. brusquement bi mu ñëwee sax man bi ma demee automatiquement nee Santos lu tax bokkul ci a ah, ci ci tournoi bi mais après par la suite xam naa ni ay yeneen la daal après bi ma ngom mi waxee ne ñi ngi ci benn tournoi di football ñu ne ko nag wax dëgg yàlla loolu moom suñu yëf lañ koy def waaw muy mbir mu am solo wax dëgg yàlla ASC bi moom dinañ ci taxaw président Ablaye Sylla dinañ ci taxaw taxawaay bu yaatu bu am solo comme ni muy taxawoo jeunesse su Touba di ko taxawee jeunesse su département Mbacké bi yëpp yéen yéen a ci jiitu incha allahu rabbi ay mesures yu am solo ñi ngi ñëw te bu soobee yàlla bu yegsee di ngeen xam ne yegsi na ci yéen ñëpp di ngeen dinañ ci préparer éventuellement nawetaanu déwén yi incha allah rabbi dinañ leen ci taxaw bu baax a baax dinañ leen ci accompagner ci sens yëpp noo leen ko bëggee rek incha allah rabbi dinañ ko defee noonu grand cheikh message bi nga ko lancé dégg na ko wax dëgg yàlla dinañ ko ko dinañ ko ko baaxee ndaxte loolu lu am solo la ndaxte wax dëgg yàlla président si la fii la defee léppam marché okas boobu yow moom ku ko xam nga. yéen seen foofu moom xam ngeen ko bu baax a baax a baax ci marché fraude beeg foofu yëpp wax dëgg yàlla moo am fa taxawaay bu am solo nag ci yi mu fay def ci wàllum social beeg ci wàllum assainissement beeg yëpp waaw ñu leen ci ñu leen di tàllal suñuy loxo nag ci éventuellement échéance yi xam ne ci lañ jëm wax dëgg yàlla ñu ñu mu bëgg cee représenté Touba incha allah rabbi dinañ ci tàllal suñuy loxo ñun ñëpp ay jeunes lañ wax dëgg yàlla ku ci nekk nag boo kuy wàlliyaane rek li ñuy wax naan sa dëkk dafa tëggul ndaxte wax dëgg yàlla fierté la rek ñu naan président bi Touba la juddoo wala Touba la dëkk wala surtout Touba lay voté loolu fierté la pour ñëpp wax dëgg yàlla ñu leen ñu leen ci tàllal suñu loxo di leen ci ñaan ngeen accompagner ñu ci ñu xool nan la ñuy fexee ba gérer suñu suñu suñu suñu suñu dëkk muy Touba parce que lu ñu am tamit fii lañ ko amee lépp lu ñu am yàlla suñu borom fii lañ ko war a delloo si ba tax na daal message boobu laa di lancer yéen tamit ñun jeunesse bi ñu déterminé wu engagé wu nekk ci li nga xam ne ni moom lañu war a nekk te yàlla bu suñu borom bu ñu booloo rek xam naa ne yàlla dinañu defal tawféex di leen di leen encouragé ba pare di leen supporté ñun ñoo ñooñu seen douzième gaynde dina leen accompagner ci sens yëpp incha allahu rabbi di leen souhaiter bonne chance jërëjëfati dafay Fatima, Abdul ah merci asiko yi yëngal bi neex na macha allah